bul fàttee cliquer ci abonné ak ci cloche bu ndaw bi pour vidéo wuñ mën ci nga mën koo njëkk a am. zikrulaahi mooy yoon bi gën a yaatu ci yoon yi nga xam ne gars yi yàlla yi lañu jaarale seeni taalib xam ngeen ni sëriñ taalib yi ñu ñëw moom ay mbooloo yu bokkul jàngoro la ñuy doon day am ñu ñëw ci ñoom ñoo xam ne tampal nañ leen gétt ci safara te safara rek la ñu waroon a génn moom sëriñ bi mooy temp gént ba gént ba ca safara. dugal leen àjjana ñooñu àjjana rek mooy seen yemuwaay ak ñoo xam ne yàlla dimbal leen ci àjjana ba noppi waaye ñu ngi ci yoonu réer xaw nag bala ñoo dee daañu gindi ko ci waaye waaye yàlla leen di gindi yàlla baaxe leen ñu daje sëriñ bu matu sëriñ mu jaar leen te yoon ñii yàlla jubal na leen bind na waye barke amuñ ko barke aduna wala barke alaxira barke aduna moy ñu la top di la liggéeyal jaar ci ndigal te duñ la moy mukk am warma am warma ci sa xol seen xol ëmbal la ci warma ba tek la place bo xamne yow tax nekku fa wala ba nga fa nekkee it umpa ni ñu ko misaal wala barke alaxira moy yomal qiyam nga taxaw ni ku fete sama wetu ndey jor ramm naa la nga ja nga jëm àjjana ku nekk ci nawetu càmmooñ ramm naa la nga jëm àjjana ku nekk sama gannaaw wala nga nekk sama kanam wala ku ma gis texe nga kon taalibi yi jëm ci sëriñ borom bi daraja yi wute lañu ñu rawante lañu ñi nga xam ne dañ leen a jaanal zikrullahi mooy ñi jëm ci yàlla dëgg ñi jëm ci yàlla ñi ci gën a bari ñoo ma ñëpp dañuy def loo zikr a zikru lan la bu mooy ba suba sëriñ bi muy misaale ci katkat wax na ko ci mutaarik waaye ci mooy ba suba la ci gën a sore wax na benn la da sikkar di sikkar di sikkar di sikkar ba maanaam sikkar si baat bi ngay wax jaxasoo sa yàpp ak sa deret nga gis kéemaan yi day boole nga gis kéemaan yi sikar wax boo xamee ne tàmbali nga sikar yaa ngi mel ne ku sóob di wal kuur gu dal rek am na pepp yu mu mokkal kuur gu dal rek am na pepp yu mokk ya muy dal day fecc naka noonu baat dikkar bi laa ilaha illa allah wala yaa karimu wala yaa latif wala yaa jalilu wala yaa azizu wala yaa hayyu yaa qayyumu ak beneen bu mu doon bu la sëriñ bi tànnal wala mu jox la ci ab bind da ngaa ami kurus xëcc wala da toog rek jublu pen ànd ak njàpp teewul baat boo wax rek dal na ci sa xol di ko wulli mel ni der boobu ngay góor di ko wulli boobu muy noonu daan waxtaane si kër kat jaar waay yi muy jaar ba muy dem ba àgg foofu sëriñ bi wax nga xam ne jaxasoo naa deretam ak yàppam zikrul mubtadiina sikkaras way tàmbali yi xam ngeen ne zikrul qalbi am na zikrul lisaani am na zikrul jawaarihi am na kuy sikkar ci lamiñam rek ay kuy sikkar ci xolam ak koo xam ne cërëb yépp ay sikkar ko dina am na kii tàmbali nga xam ne zikrul lisaani lay def tàmbali di tudd yàlla di teewlu sikkar si muy sikkar di ko dégg day tàmbalee lii day tàmbalee ci noppam ndax dégg di mu koy dégg lii ci lamiñam ndax wax gi mu koy wax lii ci xolam ndax xam bi muy xam maanaan wala bu ko xamee bu ko xamul ni muy jiita si moom ak ni muy xamee ne ci yàlla la nekk noonu mu koy yidee dana yéex a gëndoo kooku mooy dikkaru euh, mubtadi ina dañuy sikkar di sikkar di sikkar di sikkar ba suñ nelawee di gënd di sikkar di sikkar di sikkar di sikkar di sikkar ba léeg-léeg du ñu nelaw waaye dañuy dox mel na ñu koy sikkar dañuy sikkar di sikkar ba mu yàgg mel ñuy dégg baat bi baatu sikkar bi te du ñoom ñoo koy wax ñuy dégg mel ni ci tollam ñoom di sikkar ñu di ko dégg kooku mooy sikkaru mukkanikoon yi ñu soog a tàmbali sikkar dikkurul muqarrabina xam ngeen al muqarrabuna mooy ñi gën a jege suñu borom tabaraka wa taala ak siddiqoona yi sax euh, abuji ci ñoom siddiqoona yi ci aarifoona yi lañ bokk waaye du ñoom rek ñoom ak muqarraboon yi ci aarifoona yi lañ bokk daan waxtaane seen mbir insha allah léegi wa euh, muqarraboon yooyu maanaam la ñi nga xam ne dañoo sikkara sikkara sikkara sikkar nii lañ weexee bika bi laa ilaha illa allah wal muntahi muxtasirun billah bi ngay tàmbalee foofu nga xam ne aaju woo doo wax laa ilaha illa allah da nga allah rek allah joo wax sa cër yépp ba benn toqin der ci sa yaram karaw bu ci sax day sikar ànd ak yow da ngay dem ba soo noppee sa di sikkar sa xol bi di sikkar sa deret ji di sikkar sa yax yi di sikkar sa karaw yi sax ci sa yaram di sikkar loolu lañ tuddee dikrul qalbi sikkar xol bu ñu waxagum si gar si nag ni muy def ni mu lay def yow ak fi mu lay jëlee ak fi ngay jaar ak étape yi mu lay jaarale dañu ci jëm ndax ci aynul jëm ci li ñu tuddee aynul jëm ci daanu ko misaal fala la sikkar di wommal ba fëgg bunt ba ñu ubbi bu dugal le fa wàññi ko nag bàyyi laa sa bopp da ngay toll foo xam ne waxtu woo tàmbalee sikkar ñu génn da ci daa iratu xissika dootoo yëg dara boo xoolatee doo gis dara boo xamante da ngaa xippi wala da sa nopp yi dootu dégg dara looy dégg yàlla ngay dégg looy gis yàlla ngay gis looy yëg yàlla ngay gis boo lambee daj ko loolu nan la nan la demee day nekk loo xam ne yow dong dong dong koy yëg da ngay dem bu koo xam ne bu adduna bépp dajowoon di tëgg ay sabar di yóoxu di fetal di def la gën a xumb moo kenn bañ a nekk ci àdduna ñoo yem ci yow képp ndax yàlla fu mu dugg daj ko fees ko dell da ngay ci biir géej tawxid ba nga xam ne sa lépp tawxid lay doon foofu mooy mujjug martabay zikkar ci la delluwaat boo tàmbalee zikkar ci ndog yi la ñu jëm boo defee tajarrud maanaam rafle nga ci lépp bàyyi nga lépp léegi nee nga yàlla nga bëggatoo lenn lu yàlla seytaane ngem fu mu lay njëkk a tàmbalee adduna la lay indi teg yaa ngi ñàkk jóguloo liggéey liggéey bi mu ngi ci jublu boo ci duggee ne liggéey rek du dox du dox mukk sa digal yàlla du yàqu mukk ci daf koo mën a yokk daan wax nañ koy yokkee waaye dafa bëgg boo ci jógee nga mën a jaxasoo nit ñi koo jaxasoo nit ñi mu fexe ba tax xol ci li ngay def ci liggéey bi rek muy lu la gën a jege loo xam ne day dox sa digganteek la nga doon yóotu te jot a bokk ne am na foofu boo fa àggee loo mën a def jaxasoo nit ñi même jaxasoo yéefar yi sax du la wàññi dara waaye sori na ñu seet ne kon boo xamee ne indil nga la àddina الشيخ احمد بن رضي الله تعالى عنه هنا فان للدنيا هموما تمنع من الهدى وهي لا تنقطع الموت ياتي بغته وربما يكون ذا شواغل محترمه ادنا امن يتي شي نك ci nekk yoo xam ne du jeex mukk te تا dox diggante nit ak jëf te du jeex mukk te bari na bu dee ñëwee fekk boroomi itte yu bari ak boroomi naal yu bari luñ ko kon yéene àggale dee ne ko fet fet dox diggante mag loola nga xam ne kon yow mu nga xam ne yaa ngi sikkar bu la adduna njëkkee jublu ni ko sëñ bi waxee rek daf lay njëkk a won gannaaw nga ñàkk mu dugal ci sa xol ne da nga torax dugal ci sa lépp nga tëggoo mu wëlbatiku nag indi la wërsëg bu bari nit ñi fonk la di la teg fu nekk loolu lépp boo geesoo jëm ca rek ab jabar ngay doon danga man di def di dindi waaye ak jabar lay doon boo amee sëriñ moo lay làpp moo lay xettali boo ko amul ñu seet fekkente ne yàlla def na ngay ko am chance ànd ak malaayika yërmande yi lay jege mu dàq leen wala nga taxaw alxuraan ak salaatu ala nabi ba tey yooyu ay gànnaay lañ yoo xam ne dañuy ba ma seytaane waaye nag combat bu rëy rëy rëy nekk ko bu fekkee nit ku amul sëriñ la ndax dañu wax lëndëm bi nga xam ne mooy dog jaan jaan yàlla yi buñ demee bay bëgg ba ba ci yoon ba dëgg ba jubal ci borom dafa am lëndëm bu leen di feeñu boo xam ne lëndëm bu dara lu lu wuuteeg lu jëm ci yàlla maanaam daf lay waneer bi jëmee ci feneen maanaam jëmee ci àdduna mooy jox la barke jox la mën-mën jox la am am te dara lu ab jëy soo gee ko jëm ci rek yàqu la su fekkee ne nag da am sëriñ sëriñ moom sëriñ bi mat sëriñ dafa am ñaari wet am na wet boo xam ne dafa jublu ci yàlla ba faw moom sëriñ bi wet boobu du raf mukk du wëlbatiku du gees yàlla naan jàkk rek ni nga xam ne noonu laa jàkkaarloo micro bi may waxee bu boobaa soo xamee ne seytaane jëm na yow leer mooy teq koo ci wat googu nga xam ne tax sëriñ bi jógee ci yàlla ba ne caw sa digganteeg seytaane ay yar la koy caw wala mu amee ay jum di ko lakk safara mu daw ndax anamu sëriñ bi wat googu jubloo gi suñu borom tabaraka wa taala day jandoo jamaalu rububiyya bi maanaam rafetaayu fii rububiyya suñu borom tabaraka wa taala jalaalu rubu rububiya wala jamaalu rububiya bu fekkee jalaalu rububiya la day lakk mooy jum bi nga xam ne mooy lakk seytaane mooy yu bon yi bi bu fekkee ne taalibe bi sax na dëgg dëgg xolam xolam xolee na ca xolu këram bi ci cofeel fekkee ne jamaalu rububiya la dajanteeg anamu këram bi ko yeur leer lay bam ko xamne day gan seytaane bu ko xeeñee rek mu daal di daw mu daal di wala mu dee wala mu daw ñun bu ñu ne zikrul ilaah mooy xóotu xóotu xal bi tudd yàlla xam alquran la la xasida la wala tur way sikkar la mooy dundal xol mooy anima reeram moo di lekkam day set day day fóot xol mu set ñu ko misaale mooy yow yow yow ci garab bu mag di dóor rek waxtu yu sëñ bi dalee am na lu dakk su ko noonu waxtu woo sikkaree te teewlu ko am na tomb bu ñuul mu far sa xol soo ko dëkkee da ngay dem ba sa xol set bëcc xol boo xam ne kañaane wala rëy wala bëgg adduna wala bëgg daraja wala bëgg lekk wala bëgg tayeer leer yàlla ci waxtu waxaloon nag dikrullahi bi si kar si ba loolu ba xol bi set leer yàlla tàmbali dugg dugg googu muy dugg ni ko sëñ tubaa ci taala nga di sikkar di sikkar di sikkar ba nga xam ne na sa yàpp ak sa deret nee da nga kéemaan koo xam ko borom ko fikru itam la fikru rey xalaat di wéet di xalaat ba loo gis gis ca yàlla wéet di xalaat te wéet di xalaat ba loo gis gis ca màggug yàlla ak xerañam ak ak kàttanam di sikkar di sikkar ba xobu garab bi nga mën koo xool xam sekkare yi nga xam ne moo nekk sa kanam ba ba ngay dee ngay sikkar di sikkar di sikkar ba nga xam ne mën ngaa gëm jàlloog malaayika yi jàlloog ruuxi yonent yi fi jógoon jàlloog arasa kursi mën nga sikkar di sikkar bay jàng la ko mahfuus di xam li nga xam ne mooy xew ëllëg di sikkar ba nit xam aju texe wala aju texe di la xam ku dese lu bari ci adduna si dundam la wala ku desewul lu bari alquran tagg na ñaar yooyu yëpp alladina yadkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi xalqi samawati wal ardi rabbana ma xalaq bul fàtte cliquer si ak si cloche bu ndaw bi pour vidéo wuñ munti doon nga mën koo njëkk a am